moo juumul sax dem nga ba proposé ko Macky Sall ba waxtaan ceek moom yu demee noonu euh, projet boobu papa fan la toll. non yow xëy na peut-être da fàtte. waaw mais c'est bien nga dellu ci. parce mhm. que comme euh, nii rek. Euh, projet bi. waxtaanuñ ci man ak moom. Mhm. man moom moo projet bi. sama benn sœur moom moom. projet bi d'accord. bokkoon ci ñi nga xam ni. Mhm. vraiment lu yitteel Sénégal. waaw moom yitteel na leen. Mhm. groupe la ñu ñëw. moom mu génn ci parce que dafa bind projet. mais comme dafa muus am xel tubarfakàlla macha allah. dana ko mhm. yàlla fay. mu bind ko mais daf ko bind techniquement. elle est la seule à pouvoir expliquer ça. bu ci dox di ci wax ma ànd ak moom. di ci ànd di dox di dox di dox ba am ci ay partenaires yoo xam ne nii. projet bi déjà njëkk nañ ko dugal Sénégal. partenaires yooyu. ñoo ko defar. ñoo indi ko fii. ñu dugg ñi nga xam ne concerné leen. man maa ànd ak benn tubaab. fu ne dugg nañ fa. fu ne voyagé nañ fa. affaire bi di dox. ñu bëggoon ko taxawal fii ci Sénégal parce que projet la boo xam ne nii nee naa ne ay milliards day indi. fii suñu réew. waaw d'accord. te gox boo tudd fii Sénégal. Mm-hmm. nañ ko fa def man dama ci am yàqin am ci lu ma wóoru parce que man bokk naa ci nga xam ne dañ ci dox wax ci. Mm-hmm. donc xam naa projet bi. d'accord mais comme moom. Mm-hmm. bëggul ma gën a détaillé. ci bi mhm. lu mooy dañu toog di xaar ba gis ñeneen ñi nga xam ne nii gën na leen intéressé bu ñëwee ci ñun mhm. dinañ bokk toog waxtaan ñu wax lu leer d'accord mhm. xale yaa ngi nii jël kaas di dem waaw billaahi wallaahi talaahi mën na leen téye projet bi wallaahi mais est-ce euh, jëm ngeen a fexe ba Macky Sall jot ci comme mooy le président wala ñu ko jege jot ci jéem bi ma jéem. waaw kaddu lañu wax. yéen ñaar. waaw. waaw mu jox ma rendez vous. rendez vous dama sot moo tax. dëgg la. Mhm. mu jox ma rendez vous. Mhm. rendu waaw. jotul am. lu mhm. tax dañ jëlul sa sa numéro. <coughs> ngeen baal ma de. waaw dëgg dama. Hmm. dama xaw a hmm. donc ba ma njëkkee jox rendez-vous. Hmm. ñu waroon ma téléphoné. waaw yàlla je crois. daf ko natt moom. pour man rendez-vous ba antuwul. waaw lu tax. dañ toog ba dafa dasantu jullu jullit yi it mm-hmm. ma ñëw comme mosquée ba kii mu daje mm-hmm. pour ma woon ni bàyyi na ko woon ci xelam dama ñëw mm-hmm. nuyu ko jox ko loxo daan na ko bal ma àq excellence que bal ma àq du dara lu dul nit jullit ak moroomam ndegam bés bu ne war nañ mm-hmm. toog xoolante warante ak mm-hmm. estomac nag événement bu demee noonu waaw bésu it ba dem mm-hmm. ko joxe loxo ne ko baal ma moom ci boppam il s'est de moi xam ne la mu waxoon antuwul mënuma comment gaañu woowuñu la ba léegi man ko excellence non moom président waaw d'accord bu woowaat keneen Mm-hmm. ne ko jël leen numéro après yu woo ko mm-hmm. la même chose s'est répétée quatre fois de suite mm-hmm. déggoo dara waaw xam nga deux mois et demi ci korité ak tabaski moom dañu tabaski bi ma ñëw il me refait la même chose il me dit comme gaañu woowuñ la ba léegi ah. parce que chaque fois man damay yegg ba ci moom baal ko àq Mm-hmm. ah bu waxaat ma wax ja mm-hmm. comment gaañ woowagul ne ba léegi man ko léegi président mm-hmm. mu daal di woowaat keneen kooku yi jël sama numéro donc deux fois plus bu njëkk ba nga xam ne présidence la waaw muy trois fois ah def na ko ci korité ba tabaski yi daal di ñëw. Uh-huh. ma demaat comme foofu lay jullee. Uh-huh. ñu dajewaat même chose. nga waxaat nga waxaat la ko. waaw. Uh-huh. ba bi mujj. ma waat ne du ma dem ndax su ma demee ba ñu gisante ak korité. il va me redire la même chose loo xam ne am na quatre fois. amoo ci ndam donc. Euh, ma am xalaat bi ma ci kii daal di toog suma kër daw ma julli ji mm-hmm. moom moomul julli gi mais je l'ai fait exprès mm-hmm. pour bañ ko rusloo parce que kilifa di wax lu mat ñeenti yoon mm-hmm. ñuy jël sa numéro te du benn yoon boo xam ne nii ñoo ñu ngi koy jëloo waxuñ ko ko wowuñ woowuñ ma sax woo ma xalaat ne xëy na dañuy gise ñoom Mm-hmm. daan le président kat yaa wax ni eh, ñu woowoon la kii mais est-ce ko woo. d'accord mais papa est loolu dina yomb. mën na ci teg daan ne c'est pas la peine. d'accord mais mais est loolu dina yomb parce que euh, ku la xam-xamee la ci Ousmane Sonko est nekkul loolu bokkul ci loolu noonu à chaque fois mu naan la dinaa la woo dinaa la woo est-ce nekkul loolu bokkul tardeel li nga xamante ni moom mooy euh, loolu. ah projet bi. man je suis libre je suis citoyen mhm. projet bi fekkul woon sax Sonko ma di ko xam ba di ko ba di kii ba mu ñëw di ma seet si parce que j'étais malade mhm. am na fi sama benn doom bu gaañu mhm. Seydou Gueye ñëwoon na jaar sama kër gi waaw son griot ki nekkoon ci lam bi xaadim waaw ñëw na jaal si ma parce que ñun ñi ak ñett ñëpp ñoo hmm. dokk ñoo euh, dëkk Medina ñooñu buñ demee ba ñëw suma kër jaal si ma hmm. xanaa mën nañ ko wax président bu dee lu toll ni tarfatal ay na hmm. bu mën yónnee sax nga xam ne kii yëg na ma parce que man yëg ko ak bëggoon ko jaay projet bi waa jaay xaalis ak yooyu non non non joxe ko ngir bëgg Sénégal Sénégal moom projet bi. Mhm. mu indil ko koom. Mhm. looloo ma gën a loo gis. mais sama sœur bi ma lay wax day toog ñu toog. Mhm. nekk ñett ou ñeent ou euh, juróom ça dépend de lui. Ah. bu ko defee mu xam ne projet bi lii la mu jubli ci. mais léegi bay wees na mbuus. d'accord dans quatre mois xaw ma six mois mu dem. lekk c'est trop tard. amatoo yaakaar quoi ci projet bi. non mënuma am yaakaar. d'accord mais papa laaj bi may laaj ñu tëjee euh, li nga xamante ni moom mooy émission bi. waaw euh, tey bu Ousmane Sonko